ca bàkk ba jib na générique bi départ na jàngat làmb tàmbali na mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fu waay mën a nekk ci réew mi ak bitim réew tey safa wasaare làmb baay Djily mu ngi lay jaajëfal ci ànd bu rafet bi nga xamante ne yéen a ngi koy ànd ak wasaare làmb mbokk yi ku ne xam na ni bu ñu tuddee le vingt six dafa nekk journée boo xamante ne journée bu mag la ci wàllu làmb mu nekk li traditionnel am mise bi doon cinq millions fële ca stade Diom Iba waaye LP dafa ànd ak Petit Production ñu organiser journée bu mag mu dox ci diggante Ada Fass ak xale bii di Coly Faye numéro 2 mu nekk journée boo xamante ni ñu bari ci axlu làmb dañu ko doon xaar di ko waajal mbokk yi li ñuy njëkk a def mooy dañuy jubal stade Diom Iba Mar xew nekk loo xamante ni lu rëy la ci wàllu làmb ndax yaakaar naa ni bu ñu diggee stade Iba gis làmb joo xamante ni cinq millions la teg gis fa Serigne Ndiaye 2 gis fa Boy Faye gis fa Doudou Sané gis fa ki nga xamante ni mooy euh, Libidor mbokk yi gis fa Émine François Gomis nga xamante ni ñu bari dañu ko namoon ci làmb njort nañ ni làmb jooju làmb ju neex la waaye gis nañ fa xale bi di Mamadi Ndiaye ak yeneen ndaanaan yoo xamante ni làmb dafa am ci ñoom yaakaar waaye dañuy jubal stade Iba Mar wan leen li nga xamante ni jot na fa xew mais wan leen combat yi nga xamante ni ay combat yu neex la mbokk yi bu ko defee ñu dem stade Iba Mar te dellu siwaat ci plateau bi Serigne Ndiaye de dugg si na aj na loxo bi ci kaw ndaysaan jublu na xibla yi ndaysaan Emine François Gomis ma nga noonu ndaysaan ma ngay dugg ndaysaan ma nga noonu oh, wala ngi noonu ndaysaan ma ngay léemu yëkkati na loxo bi moom aada booy bawol ndaysaan aadaa ngi noonu aadaa ngi noonu ndaysaan ma ngay sotteeku Toubacouta nga noonu <laughs> ndaysaan champion la ndeysaan arbi bi sifle na Boy Faye Mamady Ndiaye Boy Faye moo la féete ndijoor Mamady Ndiaye féete la càmmoñ Boy Faye Mamady Ndiaye Boy Faye bi ah Boy Faye Doudou Sané Mamady jël na tàkk Mamady Ndiaye daan na Boy Faye dox ci diggante Doudou Sané ak Serigne Ndiaye 2 Franc Mamady Ndiaye arbitre bi atte na Doudou Sané Serigne Ndiaye 2 Doudou Sané daw na jëli ko bu ko génnee mu ñàkk génnee na ko Serigne Ndiaye génnee na la fan la ñuy mujj fu Serigne Ndiaye Doudou Sané Doudou Sané ak arbitre bi ndaysaan kott na arbitre bi jooy ndaysaan kott na arbitre bi jooy moom Doudou Sané Doudou Sané kott na arbitre bi jooy ndaysaan Doudou Sané kott na arbitre jooy sible na Franc moo la woon ginnaaw Mamadi Ndiaye ga lool ñu ngi lewaatoo ñoom ñaar dara xewagul Franc Mamady ñu ngi lewaatoo Franc Mamady Franc am na ndam Franc am na ndam Franc am na ndam ci kaw Mamady Ndiaye mbokk yi gis ngeen combat yi nga xamante ni jot na fa xew ñu ñëw ci booy fay ak Mamadi Ndiaye Boy Faye xoolaatal sa bopp ci làmb booy fay li nga amoon ci làmb téye ko yaa ngi koy bëgg a ñàkk te nag wolof def na lu ñëpp wax ñooy dëgg amul benn làmb bu Boy fay di ñëw ñu gis ni booy fay dafa simmeeku amul doole ñàkk na entraînement mais ñu bari dañu gis ni booy fay dafa desee farlu ci li mu nekk lan la booy fay buy ñëw ci làmb daa nekkul dafa am lu lu nekk ci xelu booy fay loo xamante ni bokkul woon ci moom ñi koy daan lan moo tax ñu di ko daan parce que booy fay des fois day ñëw ci làmb ñu boole ko ci favori yi waaye day teel a toog day teel toog li muy ñëw ci làmb di ko ñàkk dafa bari te vraiment bu ñu tuddee Doudou Sané tudd Serigne Ndiaye de Boy Faye nga ciy teg waaye loolu mu ngi dem. booy fay day ñëw ci làmb sax ñu bari njort ni fi ñu yaakaar mu yegg fa ci làmb du fa yegg seetaan am na sa diggante ak Mamadi Ndiaye ndax sàggante weesuwul ngay bëreeg Mamadi Ndiaye ba mu ne coppet sa tànk dëj la nga toog li nga ko may dafa bari booy fay li muy joxe tànk ci làmb li traditionnel di ci joxe wet dafa bari te mbër dangay ngay siis mbër da ngay naj sa bopp téye lu baree baree bari ci sa wàllu làmb mbokk yi ñu ñëw ci diggante Doudou Sané ak Serigne Ndiaye 2 yéen ñaar ay exemple ngeen ci wàllu làmb ndax bu ñu nee Doudou Sané ñu bari xam nañ liggéey bu rafet bi nga xamante ni mu ngi koy liggéey ci làmb Doudou Sané am na fulla ci li muy def bëgg na ko boolewu ci caaxaan te loolu dañu la ci encouragé di la ci félicité bu baax Serigne Ndiaye noonu mbokk yi mbër mu mel ni Serigne Ndiaye 2 jafe na ci làmb ci sportif ci mbër moo xamante ne bu ñëwee day concentré wu ci bisam day nekk ci làmb ba lépp lu mu war a def mu def ko mais nag am na loo xam ne du seen cër ci yéen ñaar ñëpp man nag maa ngi interpellé ki nga xamante ne mooy président CNG bi muy suñu papa Bira Sène mu fexe woo Serigne Ndiaye 2 ak Doudou Sané ñu toog waxtaan ndax nag ni ñuy indi ci bëre simple bi du yoon ñu ngi ci indi ay dóorante ñu ngi ci indi ay violence yoo xamante ne ci seeni komba lay taxaw te loolu mën naa ñàkk ci làmb bàyyi leen ci xel parce que ay exemple ngeen ci wàllu làmb moo yi gis ngeen combat bi dox ci diggante Franc ak kii di Mamadi Ndiaye Franc génnee ko par point am ndam ci koom noonu la parce que demi-finale boo gis xel moo koy bëre ndax am na nooy sàgganee rek sa adversaire mën na laa daan génn ci li nga xamante ne mooy compétition bi Doudou saane compétition bu dul neex da nga koy xam ci début bi amul benn combat bu Doudou Sané daan yi nga gagné yëpp par point nga gañe moo lay wan ni compétition bi vraiment dafay am fu mu taxaw des fois am côté boo xamante ne du fa taxaw ñu lay encouragé bu baax Doudou da ngaa ragal défaite te bëre simple mbër waru faa ragal défaite parce que compétition la ngay ñëw ak say morom gis nañ bi la arbitre bi baaree nga kott arbitre bi di jooy yow sportif nga ñëwaatal ci làmb gën a góorlu koo mënul daan ci làmb amul waaye ku la mënul daan ci làmb amul ay nattaangoo ngeen ay mbër ngeen ay champion ngeen mbokk yi nañ dem ci final bi nga xamante ni moo dox ci diggante Émine François Gomis ak xale bii di Serigne Ndiaye 2 mbokk yi bu ko defee ñu dellu siwaat ci plateau bi ay ca ñu dem wuro wa dem na këng wax mag dañ nañ taali dàgg war mbaam lu waay doon jaay léegi mu lamb compétition bi ay ndaanaan ñoo fi nekkoon ay ndaanaan di compétir ay ndaanaan di toog ba ñaari ndaanaan finalu muy Emine François Gomis ak Serigne Ndiaye 2 bu Faas mbokki Franc moo la féete ndijoor Serigne Ndiaye moo la féete càmmoñ arbitre bi sifflé na mbokki Serigne Ndiaye daw na jëli ko Franc Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye daw na jëli Franc jàppante nañu tëru na ko bañ na bañ na lu xew Serigne Ndiaye jàpp na Franc yegg nañ suuf jugaat nañ ñu ngay wuree ci bëre laa ilaaha illallaah ñu ngay wuree ñu ngay wuree Franc Serigne Ndiaye ñu ngay wuree ñu ngay wuree ñoom <laughs> waaye Serigne Ndiaye daan jël bu rëy laa ilaha illallah da koo xar yëkkati ko ba ci kaw dóor ci suuf jërëjëf mbokk yi gis ngeen final bi dox ci diggante Emine François Gomis ak xale bi di Serigne Ndiaye mu nekk final boo xamante ne ak lu làmb namoon nañu combat Serigne Ndiaye ak Franc waaye coppite am na ci diggante bi Franc mi daanoon Serigne Ndiaye ci bëre dóor jiital ko ci bëre simple Serigne Ndiaye bi mu dajee Franc wanewaat na boppam ci wàllu lamb Franc dañu lay encourager waaye di la féliciter ndax ndam lu rëy nga am arène nationale sa diggante ak Sokh waaye dafa am lu lu tax nga ñàkk compétition mooy Franc seetlul bi baax diggante bi nga jógee arène nationale dimanche boobu ak bi ngay ñëwaat stade Iba Franc lan la entraîné Franc lan la préparé ci wàllu mistik jàpp naa ne mystique yi desoon sa digganteeg soq moom nga indi stade jàpp naa ne entraînement bi bi nga jógee ci ndam li ba tey entraînement bi nga waroon entraîné entraîné woo ko waaye loolu yëpp taxul nga ñàkk làmb ji mooy Serigne Ndiaye 2 ñëpp dañu bàkk ni Franc bête noire am la fu la fekk génnee la fu la fekk daan mu teel a jël ay responsabilité am ci komba bi arbitre bi na prip may la foo yekkee nakam mu bëreeg yow ci biir wuree ci biir wuree ba daan ki nga xamante ne mooy Émile François Gomis jël bu rëy jël boo xamante ne jafe na mbër di ko daan mbër waaye foo yegg mbër ci action yu mel noonu mën nga koo daan jël bu rëyee noonu mbokk yi ñuy félicité bu baax Serigne Ndiaye 2 gis nañ ci moom yar teggin ak sportif ndax bu la neexoon boo daanee franc def ni mbëri di def ndamu parce que yaa am ndam fëgg sa dënn maa fi ne waaye bi nga ko daanee ñu ñëw danga nga wane ni sport la franc dañu ñëw tey di compétir yàlla man la may ndam te compétition yi mu ngi ci suñu kanam dëgg la effectivement bëre simple mun ngaa bëri nit quinze fois te compétition yi mu ngi seen kanam mbokk yi noonu la ñuy def rek jubali fi nga xamante ne mooy arène nationale ci kombaa bu mag bi doxoon ci diggante Coly Faye ak Ada Fass mbokk yi dañ leen dem wan leen lépp loo xamante ne wàllu ambiance la wan leen combat yi su ko defee ñu dellu siwaat ci plateau bi ay ca ñu dem Pape Ndaw ak John Sina mbokk yi Pape Ndaw moo ñu woon ginnaaw John Sina jaakaar lool. taxaba daan na ko eh, lan moo xew daanoogul jël am na Pape Ndaw daan na ko wala daanoogu ko abid yaa ngi conseil Gamza Boy Tidiane Faye client de da daan daanoogul abid àtte na jom sa booy Tidiane Jona Thiatou Kairé Thiatou Kairé la nu jaakaar lool Jona moo ñu woon ginnaaw eh jël ba eh Thiatou Kairé est-ce que daanuwul Thiatou Kairé est-ce que daanuwul jox nañu avec jox ba Jona. mbokk yi septième combat de la soirée titulaire internet. door na ko mu daanu Petit Leer daan na abit sifle na Doro File ngay daw daa bëgg a ñëw taxawee côté bii waaye te ñagas dina ko ci bàyyi ñagas dina tànk ba da koy daan da koy yenn na ko ba ci kaw day génn du génn da koy daan waaw waaw ñagas ñagas daan na Doro duma na ko daan na ko laaj na booy piir abit sifle na Koña Boy Pire Koña ko bëgg a forcer ko Boy Pire daan na Koña Koña da ko forcer benn yoon ñaari yoon ñetti yoon mbokk yi gis ngeen li nga xamante ne xew na fa ci wàllu ambiance gis ngeen combat préliminaire yi gis ngeen combat yi nga xamante ni ay combat yu neex la mbokk yi ñu ñëw ci combat spécial bi dox ci diggante booy piir ak Kogna 2 may félicité bu baax Ousseyn sama xarit bi liggéey bu rafet bi mu ci def booy Pire Kogna 2 Boy Pire <laughs> moom sama xarit la ndeysaan bu nekk combat boo xamante ni combat bu neex la combat bu neex la diggante Boy Pire ak Kogna 2 am na action bu am action bi am mooy dañu bëre ci biir bëre ñu wuree Kogna 2 daw tafu ki nga xamante ni mooy Boy Pire lonk ko caxabal ànd ak moom ñu daw Boy Boy Pire reculer deux pas wicc ko ñu ànd yegg suuf bi ñu yeggee suuf am na ñu ne Kogna 2 daan am na ñu ne arbitre bi dafa woote waat njaax am na ñu ne booy piir daan na waaye loolu bu amee saa su ne ñun reporter yi nañu bàyyi xel ni arbitre c'est le maître du terrain bi rek moo mën a joxe dernière décision bi bu nee nañ leen bërewaat ne nii nanguwaat ni dañuy bërewaat arbitre bi bu nee diw daan na nañu nanguwaat ni diw daan na ndax arbitre bi loolu moo tax ñu teg ko fa keneen kuy dugal recours na dem dugal recours parce que règlement bi may na ko lool bis bu verdict bi génnee ñu jox la ndam ñu xam ne kat recours bi arbitre yi juum nañ ndax dañu joxa diw ndam waaye joxat nañ diw ndam ñu xam ne làmb saa su ne njuumte mënu ñàkk ci arbitre waaye mënu ñàkk ci CNG mais mënu ñàkk ci mbër ndax des fois mbër yaakaar ne daan na te daanut des fois mbër yaakaar ne daanul daan na saa su ne nga gis ko gis ngeen Ronaldinho bi muy bëre Kaaw Gourdin Kaaw Gourdin dafa am ndam Ronaldinho bind recours bi ñu demee dañoo jox ki nga xamante ni mooy Ronaldinho ndam. Koña deux Boy Pire mënuñu cee sori parce que action bi am na ñu ànd ñoom ñaar dem ba site am site bi am ku ci nekk am na loo gis ndax ñu ñëpp ci làmb la ñu nekk li ñu gis mooy Koña deux moo moo moo moo moo tenté action mais boo tenté action ànd ak Boy Pire ngeen dem Boy Pire bu fekkee dafa jiitu bu moment bi mu ñëwee dañuy li ñuy rawante du bari ay seconde la ñuy rawante soit Boy Pire moo jiitu Kogna Kogna 2 effectivement te moo jiitu Boy Pire jiitu na Kogna 2 ñëw arbitre bi li tax mu woote njaax xëy na ñi plan bi bi ñu féete jàkkaarloog booy Pire dinañ mën a gis sit mais arbitre bi fi mu taxaw bu wootee njaax jaadu mais ñuy félicité bu baax booy pir mi nga xamante ni moom moo am ndam ndax dañoo dellu siwaat mu bëree koñaa de wuureeg moom ci biir bëre ba daan ko jël bu amul benn werante ñuy félicité bu baax booy piir di encourager koñaa de mbokk yi di ñëw ci grand komba bi avant ñuy siffler grand komba bi am na lu xew ci diggante kolifay ak Ada Fass ci wàllu mystique mu am benn lapin bu ñu gis muy njombar ñu tegal ko kolifay Faye numéro 2 mu wéq ko képp koo xamante ni dafa nekk ci làmb mu ñaawlu lool mettitlu ko parce que mala bi borom bakkan la te xamul dara kolifay ñu dellu siwaat ci làmb ji mbokki bu ko defee ñu dellu siwaat ci lépp loo xamante ne jàngat la ñu war ko def nañ leen dem ci Ada Fass ak Coly ay ca ñu dem. na Coly Faye dimanche 26 juin et la ñu jàkkaar lool wala boog Ada Fass la ñu jàkkaar lool Coly Faye moo ñu woon ginnaaw arbitre bi sifflé na 26 juin Ada Fass Coly Faye les 22 40 Coly Faye Ada Fass pied droit la teg Coly Faye Ada Fass Coly Faye ñoo ngi lewaatoo dañuy xeex xeex mënu cee ñàkk kolifay Faye même na léegi kolifay Faye da koy dóor mu sëgg jël ko Coly Faye Ada Fass da koy dóor jàppante nañu jàppante nañu Coly Faye Ada Fass Coly Faye Ada Fass jàppante nañu waat Coly Faye mbëb na léegi waaye doorul demul Ada Fass a ngi ne tekk di ko déglu Ada Fass dafa bëgg a juwaat loog moom Coly Faye Ada Fass Ada Fass à droite Coly Faye à gauche eh, Coly Faye Ada Fass LP Events abit bàyyi leen ñu bëre Coly a ngi dox ci ko Ada Fass Ada Fass Coly Faye da koo bëgg mu bañ dañuy xeex Ada Fass taxawagul Ada Fass day jàpp baaxul mu daw génnaat Coly Faye daa bëgg a xeex waaye Ada Fass loolu door ko moom Coly Faye Coly Faye door ma ngay seere waat lampataake ba Coly Faye ngay seere lampataake ba Ada Fass dafa bëgg moom ci tànk Coly Faye Ada Fass Ada Fass moom ci tànk day jàpp loxo bëgg koo kal Coly Faye door na léegi waaye Ada Fass dooragul Coly Faye Ada Fass na ba door ko jël na ko Ada Fass mot na Coly daan na Coly Faye Ada mbokk yi gis ngeen komba bi dox ci diggante Ada Fass ak kolifay Faye numéro 2 waxka waxtaankat yëpp waxtaan nañ ñiy analyse ñiy analyser làmb def nañ seen analyse ñëpp wax nañ seen xalaat waaye nag làmb ji nii la mujjee deme mbokk yi dina ñëw ci Ada Fass waaye dañuy njëkkee ci Coly kolifay ñëw nga bëreek Ada Fass waaye ni nga signature moom nga bëre te làmb fi nga ko teg kolifay du foofu làmb sport la boo xamante ne mbiru jàmbaar la mbiru garmi la mbiru borom jom la mais dafa ànd ak xel xel mu sell la làmb xel moo koy def kolifay da ngaa ñëw li li nga war li waroon def nga def ko ñëw di bëreeg Ada jiitu ko ci làmb ñëpp jox la favori ñëpp jàpp na yaa dàq xeex yaa dàq bëre yaay favori ci combat bi nga ñëw saraxe sa combat comme ni ñu ko mën a waxee. li tax ñu ne saraxe sa combat mooy façon bëre bi nga bëreeg Ada Fass tegoo ko fenn tegoo ko fenn mbooloo làmb buñ la ŋànkee indi la boo ñëwee ci bis boobu mu nekk bis boo xam ne bis boo fonk ka du dama du dangay wax ni damaa fonk bis bi damaa fonk bis bi da koy bëree. Coly Faye ni nga bëree du noonu nga waroon bëree. Ada Fass moment bi nga bëreeg moom nga bëgg ko jàpp mu reculer dalaa wan ni dama laa ragal te ragalu la bu la ragaloon du jël sa avance nga daw bëreeg moom nga sol Ada Fass moment bi ngay dóor uppercut foofu nga waroon téye combat bi da nga waroon di dóor ay uppercut di ko dóor di ko dóor ba yëg ni Ada Fass ku yi ma koy dóor dal na nga doog a def action waaye ni nga dawee tafu Ada dóor uppercut mu siggi nga tafu ko dugg ci sangu Ada Fass ba pare di yóotu beneen tànk bi ak sa loxo waxuma la mbot waxuma la ku dul mbotkat sax bu la jàppee da lay yóbbu top da lay yóbbu top cinq waxantuma la ak Ada mi nga xamante ni ñëpp xam nañ ni mbot fooram la ci làmb nga baal ma Ada Fass ku munul mbot ci làmb amut man topp naa ko li traditionnel bi muy bëreek ay ndaanaan foo ko yëgee fu sori ci wet dalay mbot kon Ada Fass nga bëreeg moom mu daal la jël bu rëy bu amul benn benn benn werante nga jug ñibbi Ada Fass waxoon na la ko dinaa la daan ba nga ñibbi te doo xam lu la daan effectivement da dugg ci piège Ada Fass Ada Fass félicitation Fass amaat na beneen doom boo xamante ni mun naa donn maam góor gi njaay ci làmb mun naa donn Mbaye Guèye ci làmb mun naa donn Moustapha Guèye ci làmb waaye mun naa donn Gris Bordeaux ci làmb muy Ada ndax am na sañ-sañ am na bëre respecté na adversaire war na bëgg ci bis bi te mbooloo mi mu indi stade jafe na ci mbër di ko mobiliser félicitations Ada Fass dafa am nu mu bëree te bëre bi mbokk yi dafa ànd ak xel mu sell mooy arbitre dafa siffler muy xool ba xam qualifié day taxaw wala du taxaw wan ni ko dama laa ragal te ragaluma la ñu bëre ñoom ñaar Ada Fass fat fatt làng gi daw ak kolifay ba ci saako yi mu fatt ko Ada Fass fi mu yóbbu kolifay kolifay mënatul dem parce que bu jéggee paare day jéggi saako yi mu fatt ko ne ko fii la ñuy bëre moment boobu li fa mën a am mooy kolifay day day day day daw song te bu songee Ada Fass da koy gis da koy mën a téye moo tax kolifay bi nga dawee song Ada dafa fatt angle bi nga war a jaar ba nga dawee song da laa tëru bi nga dóoree uppercut daa siggi siggi bi yëpp ci piège bi la bokk ba nga yóotoo beneen pied bi dafa crocheté sa loxo dóor la deuxième pied daal la jël bu rëy bu amul benn werante félicitation Ada Fass di encourager bu baax kolifay di ko wax ni kolifay làmb dafa am lu mu laaj làmb dafa am fu mu toll làmb dafa am nu mu war a doxee sa prochain combat xëy na dinañ xool qualify ban lan lay ñëwee lan lay yokk lan la war a mën a indi ci wàllu làmb mais Ada Fass actuellement yéeg na ci làmb war naa mën a bëre ku ne ci làmb maa ngi dégg ñu naan Ada Fass Baye Mandione jaadu na Baye Mandione mën na ko may sens Ada Fass rakkam la maa ngi dégg ñu naan Ada Fass soq ba tey def na ay preuve jaadu na maa ngi dégg ñu naan Ada Fass ak Zarko ba tey jaadu na parce que yaakaar naa ne actuellement dafa jot ñi nga xamante ni ñu ngi ci kaw ñu may xale yi loxo parce que xale bu def preuve war nga ko mën a may loxo ngeen bëriwaat bu baax a baax a baax yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax encore une fois di leen jaajëfal ci ci ànd bu rafet bi nga xamante ni yéen a ngi koy ànd Wassare Lamb di jaajëfal bu baax Ibrahima. Euh, le cadreur macha allah di ko jaajëfal bu baax di ko félicité ci liggéey bu rafet bi di féliciter képp koo xamante ni yaa ngi wasaare làmb di fa liggéey liggéey bu am solo waaye rawatina wasaare groupe képp ñu leen di jaajëfal bu baax di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew làmb jërë ngeen jëf.